Ah, bon en fait euh, li ma bëggoon wax ren moom moo di que euh, dañoo indi ay ñaxtu ndax élection yi dafa am kuréel bu ñuy wax conseil constitutionnel ak beneen kuréel bu ñuy wax commission de contrôle et de vérification des parrainages ñoom ñooy xool est-ce que nit ñi sénégalais yi ñu wax ne que ñoo leen war a signer pour que ñu nekk candidat wala député wala maire yi war a signer ndax motal nañu la yoon wax ñooñu nag dañu nekk bu fekkee ne que seen liggéey jeex na rek maanaam dafay saay ñoom kenn dootul mënati wax ak ñoom te it kenn mënul fexe it ñu dellu si te seen liggéey bu fekkee ne gisuñu seen liggéey ci sa dossier maanaam yow bokkatoo euh, maanaam kandidatur irrecevable la euh, léegi nag ci kaw loolu balaa euh, kuréel boobu di saay ñun ñu ne kon kuréel bi ñoom la ñu war a def defuñu ko walla la ñu def maanaam seen liggéey dafa setul ndaxte waruñu ñoom teew waruñu daje te fekk mandataire Ousmane ko fekkeewu ko kon bu fekkee nekk dañoo ñëw ren ñu ne ñu ko dafa am kayit bu ngeen euh, manqué le te kayit boobu du sunu kanam lañ ñu ko wax ba ñu vérifier dossier bi kon loolu jalgati nañu yoon kon que jalgati nañu yoon dañu tegu ci kaw yoon léegi nag ñaxtu boobu lañ leen indil ne leen nag bu fekkee ne que euh, vérifier ngeen dossier yi ñun démb lañu ñu di yëg ne que da ngeen waxu leen ne waru ñu dem ndax dossier aji Sarr waxu leen ne que waru seetu leen ko ndax lii euh, dossier Mame Mbaye Niang waxu leen ne que sunu dépité yi motuñu waxu leen ne kayit yi nga xam ne loolu la yoon wax dafa manqué dégg nga motul lu dul kayit boo xam ne que direct caisse de dépôt et de consignation directeur bi moo ko war a joxe te directeur bi def nañu lu ne jël na sunu sunu jël jël nañu sunu chèque wane nañu sunu relevé de compte wane que ne xaalis bi génnee nañ ko ci sunu compte dégg nga mu ngi ci seen disposition. dégg nga ak nan la tuddati wane nañu it nekk ba ñu jëlee xaalis bi bindal nañ ñu kayit nekk jël nañu xaalis bi li am solo ci élection moom moo di xaalis bi ñu laaj nga joxe ko kon xaalis boobu du fa nekk ki nga xam ne que jël na ko jox na la kayit ba pare ñuy dellu ne que il faut que keneen ñëw dëggal ne que daf la jox kayit ko ko war a dëggal nag di wër-wër loog yow dégg nga euh, bañ a bañ la jox kayit bi. nga indi firnde ne sa xaalis mu ngi foofu te kii moom moo bañ jox la ko conseil constitutionnel ma sa atte ci lee ci li demee noonu ne bu fekkee ne que buur la wala ndawal buur wala service buur indi nga euh, firnde ne que moom moo la tere indi kayit ba nga xam ne moom moo manqué bu boobaa dañuy considérer ne que say kayit mot na kon boog ñu saisir conseil constitutionnel ak kuréel boobu ne kon waru ci Ousmane loolu ngeen bañ ko dëggalaat mu war a dem noonu ndax loolu day wane que ne en fait euh, da ngeen wax ba pare waxeet parce que Ousmane Sonko la léegi kon jàpp leen ne que këyit Ousmane Sonko yëpp mot na ñaxtu bi su fekkee ne que dañ cee war a tontu kuréel bi ñaxtu nañ fa conseil constitutionnel ñaxtu nañ fa li tax ñu ñaxtu ci conseil constitutionnel dañ leen yëgal ne que am ngeen sañ-sañ. kuréel bi balaa muy tas su fekkee ne ñoom tontu wuñ ñu yéen seen bopp ngeen ne que euh, kuréel boobu ne saytuwaat ñun suñu ñaxtu ba xam ñoom lan lañ ciy mën a wax dans la mesure u kayit yi ñu laaj yëpp joxe nañ ko te nanguwuñu xool parrainage bi te ñoom loolu rek moom mooy seen liggéey léegi nag ñu ngi xaar ñu tontu euh, ci sunu ñaari bataax ñaari ñaxtu yooyu. Euh, loolu moom moo tax tey jii ñu ñëwaat conseil constitutionnel te kayit boobu suñu mosuñu mu suñu tontu ne lii la ñu manqué démb ci guddi rek la ñuy tontu ne que lii la ñu manqué te ñu xam ne que dossier Ousmane Sonko mooy le numéro un ku dem ci registre conseil constitutionnel yëpp dina gis ne que c'est le dossier numéro un ñu ngi ko déposé depuis le 11 décembre te conseil ba mu muy génnee bataaxal ba nga xam ne que dafa daf ci dindi. ñi war a toogal candidat yi bataaxal boobu mu ngi génn lu 12 fekk na dossier Ousmane ko ñu déposé ko mu ngi dugg ci sitam le 13 léegi nag démocratie ak réewu yoon lépp dafa war a jub kocc ku nekk xam fa nga war a jëm ak fan nga war a jaar wante du wër-wër loo rek bés bu ne nga indi lu bees topp ci tànk wala di jiitu nit ki di ko taqatal bu jàllee nga jaaraat ci gannaaw gor tànk yi. kon bokk nañu xam ne que dossier Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey jii war nañu jaarale mbir mi ci yoon moom moo di que candidat la dossier mot na dafa war a dem élection ndax yoon moo ko yoon moo dëgëral dossier te it Sénégal ñoom jàpp nañ ne que élection warut a am te fekk Ousmane Sonko bokku ci et que bu fekkee ne dindi nañ ci Ousmane Sonko maanaam. jaar def nañu loo xam ne yoon nanguwu.